bare bari dañ ko war a dañ ko war a càmbara waxtaane waat ko mu commencé nag wax dëgg yàlla ci ndaw ñi fa laay gën a wax ngir yàlla nañu xam bu baax a baax fi ñu teg seen tànk te delluwaat ci seen kër yi seen nga xam si ni moo di seen i kër yi waajur delluwaat ci seen i kër yi mbokk te xam ne ñu baree bari teel na ci ñoom ñu gën a dañu wut ay appartement wax dëgg yàlla am na ci ñoo xam ne fii ci Ndakaaru da xool koo xam ni maanaam amul benn liggéey boo xam ne ci dëgg-dëgg war na koo may mu wut appartement waaye fenn rek la koy teg artiste la moo xam sax tiktokeur la xamaa naa turam xaw naa àgg fenn fi mu génn kër ay waajuram di génn dëkk dëkk ba mu nekkoon ñëw fi Dakar wut fi nekk nekk fi yooyu yëpp nekk na ay mbir yoo xam ne liberté ci lay nekk naka itam xam nga ki ki faatu wàlli mm-hmm. déggal ay waajuram li ñu la wax xamuñu ci kan la nekkoon mm-hmm. yooyu yëpp nekk na mbir yoo xam ne ñu ne nee nañ ñoom xamuñu kan la nekkoon ci xale boo xam ne dañ la ñaar fukki lay soog a am wala daanaka li ko li ko teg bëriwul merci ñooñu la kooku xamuñu ay waajuram toog di ñu ne xamuñu kan la nekkaloon yooyu yëpp nekk na mbir yoo xam ne itam lu ñu war a càmbar la lu ñu war a xoolaat la ndaw ñi itam delloo si waat seen xel te xam ne seen i waajur itam ba tey dañoo am responsabilité ci ñoom nañ leen di wax fi ñu nekk laa bëggoon ñëw Baye Abdoulaye pas xale bi rek parents yi également moi je me dis que ne responsabilité bi c'est partagé muy xale bi mhm. tout comme parents yi également am nañ am nañ ci wàll parce que yow nga xam yow yaa jox sa doom nga ni mhm. euh, peut-être war nga xool ba xam fan la nekk mais mënuñu concevoir nga nga jur doom peut-être mu boo ko woowee mun la maa ngi fenn yow nga jàpp rek lim la wax aussi xam nga ndeysaan waajur yi dañoo sonn càll mhm. dañoo sonn nag xam nga dañoo sonn mooy dañuy yar taxawu jàngal li war lépp ñu def ko xam nga nit bu nee ba am ñaar fukki at war nga wala ba fukki at ak juróom-ñett rek xelam war naa màgg ndax ki yaroo ci sa biir kër xam nga say mbokk ni ñuy doxee xam nga say waajur ni ñuy doxee xam nga yar bi ñu def ci yow waaye ñu baree bare ñoo fay jóge am weneen melukaan ci loo xam ne sax seen waajur mën nañ koo bañ yëg wala mën nañ ca bañ a ànd ak ñoom xam nga nit bu toogee ci dëkk bi ba ci yàgg amaana mu nekk ci dëkk àll ba tàggu ay waajur di na patron bu nekk wala am na kër gu mu nekk mais bu dikkee Ndakaaru ci diir xam ba am beneen ka xaar kanam boo xam ni ay waajuram sax duñ ko xam yooyu tam nekk na loo xam ne wax dëgg doo ko mën a dénk waajur yi amaana itam waajur yi baree bari nag fi ngay mën a waxee ci ci wet yi mooy ñoo xam ni seeni njaboot dañuy yëkkati alal di leen jox ñuy jël di lekk te xamuñu xaalis boobu fan lay jóge yooyu itam nekk na mbir yoo xam ne dañu war a seetaat la ndax am na waajur yoo xam ne dañuy togg caag ñu leen seen doom ñàkk na seen bakkan wala boog ñu leen la sa doom jigéen ji moo def lii moo def lee ñu lay indil xaalis weer wu dee ngay jël mu nekk xaalis boo xam ne amaana ba ko jëlee nekk na mbir yoo xam itam lu ñu war a càmbar la ci wet yooyu dëgg yàlla d'accord très bien Baye dañuy jàll ci euh, beneen euh, point bi mu jëm euh, Michel ci